al ibaadatu wal xidma di jaamu yàlla ak liggéeyal lislaam asalaamaaleykum mbokk yi ci Nouvel Ordre Mondial Cheikhouna Mbacké Abdoul Wadoud mooy nuyu ñëpp di seer ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm eh, waaw waxtaan wi de xam naa ne mel na ne neexut a tënkite ndax daa mel na terrorisme la ñuy wax waaye wax ji dana ko gën a yaatu day mel ne xëy na nouvel ordre mondial bi ñuy wax daal daa mel ne kuy waxit fa lay jëm rek ndax yu bari dañoo duggante foog na rek baax na moom lu ñuy wax lu nekk itam nag eh, nu leeral ko yemale ko teelam doon rek buñ dee jàll ci leneen ñu jàll ci leneen bu dugganteeg leneen tam ñu xam ne duggante nag leneen waaye moom nañ ko leeral mooy terrorisme ci boppam nag foog na am na fu mu yem Eh, xëy na ko bëggoon a wax ci tubaab yi taxawaayu tubaab yi réewi tubaab yi maanaam seen taxawaay ci jullit mi loolu mbir la niñ bëgg noté àddina si loolu mbir la complot yi ñuy def mbir la yooyu yëpp lu ci ne mbir la waaye nag fooguma ne lépp lépp lañ ma dugal ci terrorisme terrorisme moom daa am lu muy firi sëñ Fadel Bass Xasan eh, tàmbali na ci lu yaatu Euh, foog naa ne euh, xëy na ku ci dolli woon dara rek ci ni ma ko gisee man mu mat ndax ni ko waxee mooy koo xam ne day jël day jëfandikoo ngànnaay ak doole ngir sottal ay bëgg-bëgg am bëgg-bëgg ñu a sottal euh, li ma jàpp ne nag mënu cee ñàkk ngir ñu tuddee ko terrorisme ndax loolu mën naa am te du tudd terrorisme foog naa ne terrorisme moom foog naa li ko li muy tudd dëgg-dëgg. ndax maanaam baat bi ci cosaan tam du du du tàgg du tàggoog moom muy tiital googu mu wax tiital tiital gi nag li tax muy doon tiital mooy terrorisme foog naa mooy loo xam ne kuy jëfandikoo ngànnaay ak doole ci anam goo xam ne day indi tiit tiitaange gu sax ci biir nit ñi ndaxte nim koy defee du jàkkaarloog du jàkkaarloog ki muy jëflanteel waaye day bette day bette day bette duñ xam kañ le ñëw duñ xam fu muy jóge ba tax nit ñi fuñ toll rek dañuy ne ci tiitaange ma foog naa ne ah, loolu mooy tax ñu tudde ko terrorisme waaye ku yor ngànnaayam jàkkaarloo ki muy jëflanteel lu mat di euh, jëf euh, jëfandikoo ci ngànnaay ak ci fitna itam ci doole du tax mu tudd terrorisme bala ko tudd rek day fekk ne day bette day bette duñ xam kañ lay jóg duñ xam fu muy jógee itam loolu foog naa waxe ko noonu moom dana ci baax ñoo xam ne dëgg-dëgg nag loolu mooy terrorisme léegi nag niñ koy jëfandikoo nag ma ñëw ci beneen ngir jéem a leeral euh, niñ koy exploité di ko jëfandikoo. asalaamaaleykum mbokk yi Cheikhouna Mbacké Abdoul Wadoud kon terrorisme man loolu ma ko jàppee nag. Euh, noonu mu mel ba tax kenn rafetluwu ko tax na ba ñu bari buñ bëggee euh, wut buntu buñ mën a jaar ba songu nit dañ ko koy tuumaal loolu moom kon ma jàpp naa ne réewi tubaab yi euh, ni ñuy jëfandikoo terrorisme mooy di ko tuumaal di ko tuumaal ay mbooloo ngir mën a dal ci seen kaw di ko tuumaal tuumaal ay réew sax ngir mën dal ci seen kaw wala ngir mën leen a xeex daal ci anam bi ñu leen xeexee moo xam ci wàllu koom la moo xam ci wàllu ngànnaay la moo xam ci wàllu gu doon loolu moom ñu ngi koy def daanaka réew mu ànd ak ñoom wala mbooloo mu ànd ak ñoom rek ñu jëm ko tuumaal lool ngir am bunt ci moom ndax buñ ko tuumaalee loolu euh, loolu kenn da cee àndut kenn du ko lu ba tax ku koy xeex euh, nit ñi dañuy nangu xeex boobe ba tax ñu koy def noonu gis nga liñ tudd ay Iran ba dañuy def sax ay liste ay list yoo xam ne fu mel ne Amérique noonu lay def te defu liste boo xam ne danaan mbooloo yi wala réew yi ay terroriste lañ leen jàppe bu ko defee tere américain di jëflante ak ñoom ci genn anam yeneen réew yi sax mën nañoo dem ba àgg ci ku bëgg a jëflante ak ñoom sax ñu woon ko ne kon suñu diggante du mën a neex te yooyu nag du caa gënu liñ koy tuumaan ñëpp dëgg dëgg daa demee noona waaye tey ñu àndut ñoom jubóo ñoom ñoom rek jubóo di ko mën naa lu bari mën na koo waral eh, waaye loolu moom lu am la mais exploitation bu ñuy bu ñuy exploité kon baatu terrorisme ngir mën a xeex ñu wuuteeg ñoom moom kenn du ko kenn du ko wedd jëmmi lislaam ci boppam nag sëñ Ousmane junj na ko foog na xam nga neen ko seetloo bi Euh, communisme daano union soviétique daano quatre-vingt-onze boobu tubaab bi dañoo wax na léegi ndax lu ko jiitu diggante li ñuy tuddee waa waa sowu ak ak union soviétique yi ñu mu àndal la woon xëccoo xeex bi fi la nekkoon union soviétique daanoo nag ñu ne léegi euh, li dese tubaab yi di taxaw seen kanam di di euh, bañ leen a nangul mooy lislaam ne kon mooy noon bi léegi ndax ni Union soviétique taxawee woon communisme bi taxaw jàmmaarloo ak capitalisme bi nga xam ne réew tubaab ci lañ ci lañ ci lañuy tënku Union soviétique daanoo amatul lu jàmmaarloo ñoom lu dul lislaam wala boog lu lu lu fenn euh, amut lu lislaam àgg ci jàmmaarloo ak ñoom jàmmaarloo gi itam mooy rek ginnaaw ñoom gis na am na nuñ gisee àddina Euh, lislaam it am nu mu gisee àddina te ni ñu gisee àddina wuute loola mooy jàmmaar lool bi nga xam ne ñoom noonu lañ ko gis ndax dañoo jàpp ne ñoom sëñ Fallou Bousso wax na ko foog naa dañoo bëgg niñ gisee seenu gisin daal lañ bëgg mu muy dox fépp ba ku ko nanguwut rek ñu jàppee ko ko wuuteeg ñoom koo xam dañ koy fexeel ngir néewal ko doole kon lool bokk na ci li tax jëmmi lislaam ko wopp moom ñu ñu di ko xeex ngir loolu bu ko defee kon réewum jullit moo xam ne nangul déggalu leen danañ ko tuumaal yu mel noonu ku mel ne Iran moom déggalu déggalu tubaab yi dañ koy tuumaal yu mel noonu ngir mën a jéem a am bunt ci moom euh, xam naa waxtaan de gudd nag moo tax bëgguma kii gudd loolu waaye xam naa du mën a ñàkk maa ngi jéggul nag euh, asalaamaaleykum li ma jàpp ne mooy terrorisme dégg nag tam waxoon ko loolu moom yàgg na am ci àddina si yàgg naa jóge itam ci ñoo xam ne la leen koy tax def yu wuute la ñi leen koy tax a def mbirum diine la ñi leen koy tax a def mbirum politique la ñi mbirum sax xeet la mbirum daal seq ñañ seqal daal ñàkk jubaguñ jubóom ñoom ci wet yàgg na ko waral xam nanu Euh, waaye jamono yi nag moom jamono ñu toll nii nag moom euh, yi ñu xam te man te man ko jàppe terrorisme dëgg-dëgg nag moom euh, ci jullit ñi lay lay amee lay jóge loolu moom waxuñ ne lislaam la ndax lislaam ak jullit ñi bokkuñ waaye nag jullit ñi lay jóge jullit ñooñu nag ci lislaam la ñuy tuddoo ndax ay jullit lañ seen dégginu lislaam xëy na moo leen ko yóbbee dégginu woon nag ñun dañu jàpp ne dégginu njuumte am la ndax ko sëñ Fallou bu soo waxee léegi lislaam moom ga amu ci ga ga nit ki ci dugal ko ci lislaam amu ci wala ga ko ci e, di ko teg loo xam ne daal du coobareem loolu bokk àndut ak lislaam moo tax ku ko wër ci lislaam itam dañuy jàpp ne déggin wu jubut la wu la waaye dëgg-dëgg nag moom yaam am ne nii nag tañ mën koo jàpp tourisme dëgg-dëgg moom ay a koy def koy def loolu moom foog naa neex neexut neexut dàq donte tubaab bi danañ jëfandikoo terrorisme ngir euh, di ko taqal ñoo xam ne dëgg-dëgg néewul ci ñoom ngir mën a am yoon ci yoon waaye yoon ci ñoom waaye nag am na bu wér nag ne moom mm, am na ñu koy def nag te ay jullit lañ fi mu ne jamono jii nag ay jamono ci ginnaaw tuuti rek yaatu woon na ay Irak ca Angleterre ay Basque yeeg ñooñu ñëpp taa nañ ko def bu yàggul lool duñ ay jullit waaye fi ne jamono ji mu wax dëgg yàlla ñu koy def ay jullit lañ nag lu ko waral nag euh, sëñ Fallou xaw na cee juñ dara sëñ Fallou Bisa Xasan li koy waral bokk na ci nag ak ñàkk maandu ak jaay doole xam nga bu dee ñaari wàll genn wàll gi ëpp na doole ka ca di ko jaay doole ak di ñàkk maandu ci ni ñu jëflanteeg moom wàllu gu néew doole gi day dema dema dem ba du euh, bu nanguwut liñ koy teg te munta jàkkaarloo ki koy teg la muy man mooy di ko dox di ko ginnaaw rek di ko doxee ginnaaw di ko yàqal man terrorisme rek laa koy firee daanaka mi ngi mel ne rek mag mag mu toon ab xale ëpp ko doole di ko tooñ xale bi munta jàkkaarloo ak moom di fayu wala di ko di mën a aar boppam la muy man mooy di ko ginnaaw rek doxe ginnaaw lépp lu mu jàpp ne bu ko defee yàqal ko rek mu jéem mu def ko doxi ko ginnaaw def ko waaw ba àgg ci di dóor ay xaleem di dóor ay ginaaram <laughs> di di di di rey ay nangamam lépp lu man rek daal ngir xam na ne mun mënut a jàmmaarloog moom bu ko defee lu man ci yàqal ko rek mu di ko def bu koy def nag dafay ginnaaw mun foog naan loolu lu ama am doole la ci li waral terrorisme bii di am ba ci bii nga xam ne ay jullit a koy def sax ndax ci cosaan la baal ma ñëw ci waaw bare cosaan la eh, dañoo gis luñ jàpp ne tubaab yi dañ koy doxale ak seen réew yi ci ak noteel ak ñàkk maandu ñu gis nañu jiite seen réew yi dañoo ànd ca loola te ñoom nanguwuñ ko te mën ñoo jàmmaarloog ñoom ñu leen doxe ginnaaw di leen yàqal rek man loolu laa jàpp ne mooy cosaan lu bare bare bare ci terrorisme bi am ci réew ci ci ci jóge ci jullit moo xam ci réew jullit ñi lay amee moo xam sax ci réew yu dul lay amee waaye julit di ko def cosaan la moom foog naa ne loolu la baa ñëw ci benn ngir gën koo euh, ci misaal rek li amoon Algérie ci njëlbeenu ati quatre-vingt-dix yi muy fiis fiis bi mbokkee ci élection législative ba gagné wala ba jiitu ci premier tour yi ñu jekki-jekki ne ko yow nag bu ñu naan démocratie yow bokkoo ci nanguloon nangul nañ ko ko waaye xëy na dañoo bëggoon yoonal rek buñ ko ko nangulee bu demee kenn kenn jiital leen ñu leen waa mi ngi nii nit ñi ñoo leen ñoo leen bëggut waaye buñ demee nit ñu bëgg leen bañ nar a jiitu ñu ne ah yéen nag bokk leen tey seen loxo foofu ñooñu lañ manoon dañuy dañoo jàpp dañ leen xañ seen àq ñoom lañ doon def ñoom it mun ñu jàmmaarloo kii ñu leen ginnaaw ñoom it di di leen yàqal rek ñu tudd leen ay te leen ko la ñuy def mën nañ ko tudd terrorisme waaye la leen ko yóbbee nag dañ jàpp na seen àq ñu doon foqat la te mën ñu jàmmaarloo ki foqat seen ak ñu koy doxe ginnaaw mooy am ci réew yi ay Palestine ak yu mel noonu ku ñëw nangu la sam réew not la ëpp la doole te nanguwoo loolu yow nanguwoo bàyyeendiku léeg-léeg nga koy jéem a doxe ginnaaw yow tam di ko yàqal loo man rek ku ko ko jur xam nañ ko kon buñ ko bëggoon a saafara mooy tooñ googee ak ñàkk maanu googee bu dañoon lay mën a dañ kon am na loo xam ne euh, ñi am doole ñoo ko yóbbee ñi néew doole te loolu tam nag daa bindug nit la nit ñëpp yemuñ am na ñoo xam ne ku leen ëpp doole jaay leen dool xëy na ñu bàyyandi ko am na ñoo xam ne duñ bàyyandi mukk moom loolu ëpp ëpp ëpp doole itam duñ bàyyandi ko bu mukk boobaa la ñuy def nag mooy lu ñu la mën a yàqante la ko yàqal foog naan loolu bokk na ci li ko sabab lool lool lool lool ki néew doole daal yëg ne ki am doole mi ngi koy jaay doole ji te mënut a jàmmaarloog moom muy koy doxe ginnaaw rek euh, Israël ñëw not Palestine den teg lu ne te ñoom mënuñ ko nangu mënuñ koo wéyaale ñu di ko ginnaaw luñ mën yàq yàq ñu tudd leen terrorisme ba am bu ñu ko tuddee bu ko tuddee woon moom ñoom dañ leen jàpp ne dañuy aar seen bopp dañuy aar seen réew dañoo foqat seen yëf ñu bëgg koo nanguwaat yu mel noonu daal am naa ne bari na ci terrorisme waaye nag tubaab yi li ñuy def moom yeneen la yu baree baree bari yoo xam ne pour mu wax na ñoom terrorisme la ñuy def ci lépp te dañ ko def nag ndax terrorisme itam nañ koy waxee am na loo xam ne ci ngànnaay lay doon waaye am na xam ci leneen lay doon xeetu chantage lay doon boobaa waaw moom danañ koy def waaye tudde ko terrorisme nag foog naa du du tax mu yombee noonu ñoom daal liñ ci def moom mooy def ko jumtukaay boo xam ne kuñ bëgg a dal ci kawam tuumaal ko maanaam aw yoon wi jaar ba dal ci kawam loolu mu xam naa dañ ko def euh, la amoon lii beeg yëpp duma ko tudde terrorisme man lañ def ñoom waaw ah, jaay doole la jaay doole gis nañ koo xam ne neexu leen yàgg na leen euh, yàgg naa wuuteeg ñoom euh, buntu bu tuut tuut buñ mën a am ba jaar cee rek dal ci kawam ñu def noonu rek ngem bu ñenn jàppale leen dañ def ci kawam waaye lii bi dëgg-dëgg ñu doon waa réew ma songu Xadaafi duñu ay dëgg-dëgg ndax bettuñ ko dañoo jóge fañ jóge di ñëw jëm si ci moom di xeex ak moom jàkkaarloo ak moom jàmmaarloo ak moom loolu man tudd ma du ma ko tuddi terrorisme waaye kuy bette man day tuddi terrorisme bett bett goo xam ne it ne la lay jóge jamono ju lay mën a am itam loolu mooy terrorisme dëgg-dëgg xadaa fi ñu ko songoon dañoo ñëw jàkkaarloo ak moom tubaab yi nag jàppale leen bañ euh, ñu ëpp ko doole rey koon réew mu dox fa yàqu nag bam fa bam bam ba ngànnaay yi tasaaroo nag dugg ci yeneen réew yi yooyu foofee nag le terrorisme tàmbale amee nag moom ndax ñu jot ci ngànnaay yooyu ñoom dañ koo jot làqutu léegi la ñuy song fenn rey fa ay nit wala yàq fa lu ñuy yàq loolu moom mooy terrorisme moom baax na maa ngi jégul nag gudd na waaye wax ji du jeex moom xëy na buñ demaatee ba am leen mën a waxaat ak man ciy dugaat jërë ngeen asalaamaaleykum ma tëjee tuuti rek doon wax na li waral terrorisme yàgg naa ko wax jamonoy fiis laa ko daan wax di wane ne arab yi am na aw woy woo xam ne ci arab la day woyoo day wax naan alqaahu fil baxari maktuufan wa qaala lahu iyaaka iyaaka an tabtalla bil maa'i mooy ku ku takk ku yeew loxo yi nit yeew loxo yi yeew tànk yi takk loxo yi takk tànk yi ba noppi sànni ko ci biir géej naan ko nag moytu la tooy moytu tooy <laughs> loolu moom dama koy firee ne ñiy def terrorisme bi am na ci loolu noonu la seen mbir demee dañ leen a sëkkatal sëkkatal sëkkatal sëkkatal ba lii rek des fi ba noppi ñu ne la nag bu leen bu leen ci jaar lu mel koy faral di wax rek ku ku sëkkataloon lu mel ne muus ba amut fenn fu mu jaar ful ci sa kaw ci sa kaw lay jaar mooy lu mel léeg-léeg nit dañ ko koy dañ ko dañ ko dañ ko koy yóbbee day jëflante ak moo anam goo xam ne amut fenn fu mu jaar lu mel ne am na réew yoo xam ne euh, dañ naan duñ nangu ku fa def parti boo xam ne day sukkandiku ci diine te am fa nit ño xam ne ñoom diine lañ gëm diine lañ xam lu ñu def lu ne ci diin lañ mën a sukkandiku te doon mbooloo mu bari moo xam ne daanaka dañ leen xañ seen àq yi mën euh, seen xalaat ci réew ma ñooña buñ demee amuñ benn bunt buñ jaar dañuy dem mujj dañuy def mooy jëfandikoo dool ndax dool lañ leen jaay ku jaay doole nit bu demee ba sës doole rek lay mën a jëfandikoo moom itam bu munta jàmmaarloog yow nag la muy man mooy di la dox ginnaaw rek di la jéem a yàqal lu man rek lu mu tuut tuut loo xam ne boo ko defee mu naqari la mbaa mu yàqal la rek mu def ko loolu damay na ne ñu bari bu ñu leen dee tere terrorisme dañ leen ko dañ leen caa jeñ dañoo yow seen loxo yow seen tànk sànn leen ci ndox ba nopp naan leen bu leen moytu leen a tooy moytu leen tooy ci ndox mi jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum. mbokk yi Cheikhouna Mbacké Abdoul Wadoud maa ngi nuyu ñëpp di seer ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm waa de damay door a déglu waxtaan wi mu jiitaloon ndax bi may dugal ci groupe bi daf mu jàll xam naa Serigne Xaadim Mbaye Xaadim xam naa bi mu gisee ma dugg bi ma waxee xam naa ci la fàttalikoo ne kon déglu ma waxe Serigne Fallou Fall ndax am na yu wax yu ma doon waxaat. ci la ma ko yónnee nag ma doon ko déglu ba ci dara noppi nii sëñ Fall du ngi lay sant bu baax a baax ci waxtaan wi yaatu na lool yaatu na lool ëmb na wàll yu bari yu ñu soxla wàcc ci wàllu ku bëgg waxtaane terrorisme xëy na dana ci am yooyu nit mën na ci am xalaat waaye li am solo moom mooy wàll yëpp a nekk ko wax dëgg xam naa lu mel ne 11 septembre nag moom. moom mbir mu doy waar la da nga tudd nga ay yoon day wax nebi nébuleuse waaye moom ci la bokk nag mbir mu doy doy waar la mu doy waar la am na enquête bu ci journaliste bu nekk Al Jazeera def dama xamut euh, ndax kii nga kom deet waaye boo ko gisoon moom daa xam ne daal lënt lënt na lool lool lool lool lool jàppe ko niñ ko waxee ci kaw gi nii rek du yomb di lim naan ay neuf neuf sawa yàlla ak ñaari ñeneen ak nangam nangam mel na ne gën naa gën naa gën naa lëj loolu daal gën naa lëj loolu moom xam naa ne bu nit ne américain ya ko def ngir mën am ñuñ ko tuumaal bo mën a am ci ñoom bunt loolu moom du neex euh, lu yanu maanaal daal ko waxee woon noonu am na yu baree baree bare daal yu ci nekk yoo xam ne mën naa tax nit mën a jàpp loolu te am ko jàpp yàgg ko wax nag hmm, xam naa te am na fooy tuddee xam naa chaque foka nga bëggoon a wax ne Mister Rocard mooy ki njëkk nekk foog naa ki ñu daan wax Messi Afrique De Gaulle defoon ko ko tam nekk ko lu yàgg ba bu yàggut la faatu at yi rek la faatu chaque foka la xam naa bi ngay wax da nga ne Mister Rocard waaye am na solo lool sant naa ci bu baax moom jërëjëf waxtaan nag daal moom ni ko waxee te ñeneen waxee ko nit mooy daanaka da yaatu lool daal da yaatu lool waxtaan mbirum terrorisme dala yóbbu ci yeneen ndax àddina si mbir yu bari duggante ba tey tax ba lépp day duggante rek ba daanaka fa tàmbalee da nga mujj àgg ci feneen baax na jërë ngeen jëf bi ma duggee léegi damaa gisaatul keneen ko dugg nag moo tax xam naa. bu keneen duggee wax ci liñ doon wax wala wax ci leneen xëy na dana mën ubbiwaat ay bunt jërë ngeen jëf